aha laan bikum juróomi doomu xaadama ñoo faatu ñàkk seen bakkan ginnaaw bu ab bul taax daanoo ci seen kaw allah Sud Quotidien moo ñu ko xamal la Soleil yéen a kaay na ko musiba mbàbba kumba moomu ma nga xamee ca zag mbaaw tëngéej regard yéen kaay na ko moo taxit ministre délégué ca wetu jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi muy Biram Fay ak gouverneur bu dakaar fa ñoo dem ba ca kër ga yegg fa taxawu ñu loru ak mastaw seeni njaboot turbine yéen fa métti fa garaaw xam taax mu mag immeuble fa daal di weng ba mujj nërmelu sukk daanu ca kaw ña fa nekkoon di ay ouvrier liggéeykat yaaw fa ngay xool fukki doomu aadama ak ñett ñoo ca am loraange juróom ñoo ca faatu ñàkk seen bakkan juróom benn ñoo ca rëcc mucc fañ leen a génnee libération na ko xéew xam na ñu ñuy wax naan ñaaraan ca ron kër ga daanu ca seen kaw ak lu mu ci mënti doon juróom ñoom ñàkk nañ ci seen bakkan le quotidien yéen kaay na zag mbaaw kay la fa xam fa doy mu mag immeuble aadama ñàkk ca seen bakkan juróom-ñetti doomu aadama am ci ay gaañu-gaañu l'observateur na leen lii kay musiba naaru laay la leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Ousmane Sonko ma nga ca diggante dund ak dee bakkana ma nga ca xottu gerte yëf yëf a gën a garaaw démb ak bërki démb ba tey ji ñuy wax ak yéen Ousmane Sonko wér gi yaramam fa garaaw ba nga xam ne awokaayam ya munuñ koo gis médecin yam ya munuñ koo gis kilifa yeewi askan wa nga xam ne xalifa général des mourides fa leen a dalaloon jox leen tàndarma ne ñu jox ko usmaan Sonko ak kàddu yam ko dénk loolu bërki démb la léegi démb nag ñoom waa yeewi askan woowu fa ñoo dem ca hôpital ba ngir gis Ousmane Sonko waaye kilifa ya fañ leen leen koo gi yaramam fa doy ni maître Ciré Clédor moo ko wax ba pare di artu ca libération na yëfi fi mu ni fa garaaw ca regard yéen a mu ne faay artu balaa làmbaaye ñaaw Sonko fi mu ni sonn de indépendant yéen a na Sonko yëfam fi mu ni fa critique de ba kanam fa nekk ci xottu gerte source a yéen a kaay na seppi rocc giñ ko rocc nag moom Ousmane Sonko ci liste électorale bi notification ba commissaire bu jëppal fañ ko koo jox mu dem kër Ousmane Laurent Gbagbo ki fi nekkoon njiit bu Côte d'Ivoire moom fa ñaawlu tas gi nga xam ne tas nañ ko parti Pastef bu Ousmane Sonko nee du dëgg du yoon ñaawlu na tamit CEDEAO song gi ñu bëgg a song réewum Niger ba tax Walfadjri yéene kaay na Gbagbo kay fa yàq njiit réew Macky Sall kàddu ci dal dee ndax ñaawlu doxalinam Arona Coumba Ndoffène Diouf ne faa leen di waxal leen njiit mii fa bëgg a des ci nguur gi te lii ñuy def bàyyi Sonko ak a ñu ko xam ne fa wax ne xam na ko muy bu Sénégal ak France te loolu ku ko xam mënoo nekk candidat fañ koy xaayee waaye bàyyam Abdoulaye Wade nag fa mel ni fa fas yéene wane boppam ci yëf yi keneen ku wane boppam mooy njiit réew Macky Sall ca sommet ba ñuy xamal ca Johannesburg Dakar Press yéen a kaay mi fa fëgg buntu ña nga xam ne ñoo organisé sommet ba muy waa BRICS regard yéen moom fa ñoo xamal na ca réewum Russie soldat bu mag boobu nga xam ne mooy njiital Wagner fa faatu ñàkk bakkanam ginnaaw bu avion ba mu duggee kalaate daanu mooy ki fi bëggoon foqarti nguur ak Poutine ga fan yële weesu te mooy jàppale yenn réewu leer laneen lu leer ba yegg ca nàññ ja mooy ne njëgu lu yaas gu seer gi ñu waxoon na fay wàññeeku sénégalais yi mbetteel lañ ci xam ndax luwaa bi nguur gi fa ca lajj ba xalangu tey la lu yaas bi gën a seer info yéen kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom teen mooy yéen kaay mooy fi mu toll nii sénégalais yi ña ngay dem amérique ci anam gu bëri goo xam ne fa jégg dayo mané gaa daal la ñuy jaar mexique ba dugg amérique tàggat yaram Bamba Dieng fi mu toll nii fa nekk ci ay jafe-jafe ma ngay gaañu te mënta dugal stade yéen kaay ñu ko xamal la mu ñu moom sunu lamb yéen kaay mooy ne Mohamed Ndaw Tyson dëgg-dëgg dëgg royukaay la ci mbër yi ak ndaw ñu bëri yaaw fa ngay xool fu suufee la tàmbalee xamutoon dara gëm boppam ba tey jii mu nekk investisseur bu mag maanaam xaalis bi mu am ci làmb ji foyewut ko caaxaanu ci fa cee liggéey ba fi mu toll ni fa xam xaalis lool réew mi yéene kaay moom fa xëy di ñu xamal ne jëkkër ak jabar yuy sëy ay at yu bari te mënuñoo xam doom fa bari léegi Sénégal te ñaareel fitna ju mag ak méttit moom la jabar ja di dund yaaw fa ngay xool fa ñoo jaasi rek jabar ji mënta xam doom ak ñu di ko gaaru waala ca kër ga di ko wax wax yu ñaaw te métti benn soxna bu loolu dal mi ngi wax ci yéen kaay bi nee na man faa sëy ak sama jëkkër juróom-ñetti at amuñu doom te man maa ngi dem hôpital di faju waaye saa bu ma ko waxee na ko docteur bi nee na nañ ànd yow tamit nga dem ñu seet la ndax mën naa am yow yaa mënta am doom su ma ko ko waxee rek mu dal sama kaw naan ma bu ma foxantoo man dara dalu ma fay lànk bañ na du dem hôpital waaye mujj gi ci la ñu dem ba gis na ndekete sama jëkkër jooju moo feebar ndax fa am li ñuy wax varicocèle boo xam ne fa tax fa tax ndoxam mi woyof mortin xam-xama màcc dundunu doomu aadama fa wax ne Sénégal jigéen bu sëy lu yàgg amoo doom rek fa ñuy foog na ca jigéen ji la te liy dëgg mooy góor tamit fay feebar ba du mën a am doom te li ci gën a bëri ñu mën a faj la hmm, waa ma ne kon daal man li ma ci xam fi mu toll nii mooy ku sëy ak sa jabar lu yàgg xamuleen doom xàndalee leen ñaar ngeen dem hôpital dara newu ci su fekkee yëf yi ci góor gi la fajong fi bu dee si soxna la simit fajong fi ginnaaw bu loolu yëpp jeexee nag doom moom alalu yàlla la moo koy jox ku ko soob mën ñàkk feebar dala darut la yàlla dogal ne doo xam doom su boobaa fa nga koy muñ